asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 11 janvier 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey fa mu xëy ñëw fenn la maanaam émission bi nga xam ne amoon na ca TFM maanaam ñu koy tuddee invité d'honneur mu mel ni ki nag mbër ya nga xam ne daal ñoo fa daje woon parce que VIP yi nekk ci làmb ji boo xoolee ñu ci ëpp daal ñu nga fa woon daje ka nga xam ne moo doon Pape Cheikh Diallo sunu làmb nag tey loolu la ñu xëy indil ci xëtam mu njëkk mu mel ni ki nag daal yëglikaay ba na mu ko tuddee moom maanaam ndëpp la ko tuddee moom la kii Modou Lo Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène tafaatin ba ci booy ñang daal lool lañ doon def fa nga xam ne ni moo doon ca TFM yëglikaay bi na nañ ci la nga xam ne ni daal moo di wikloo ak fa nga xam nii fa lañ ca war a ca war a doxe ak na mu war a demee droit télé daal mbër yaa ngi xamal état bi ne ko la nga war a def mooy li xam ne ni daal moom mooy droit télé nga jënd ko ngir promoteur yi mën a tëgg làmb yi su ko defee mbër yépp a bëre moo loo moom la mu xamle daal nee na fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg daal bi lenn daal la war a def maanaam daal fexe ba ñoom li nga xam ne ni moom moo di seen ay combat naka la état bi di taxawe ba ñoom ñu mën a reprendre daal maanaam delluwaat ca giiw ba addu suuf la ñu bëree parce que mud na na ñu yéene ñoom di talal kenn ay loxo di ko ñaan kon seenub liggéey daal da leen état dimbali ñu dellu ci Balla Gaye numéro 2 moom jàpp na ne moom pare na fi mu nekk nii taxaw temm ngir fas yéene nag bëree tayit respecté la nga xam ne nii moom moo di mesure barrière ak ñu mel ne ki ñoom Balla moom gis-gis booba la amee Gris Bordeaux ma leen jiite tamit daal ñëw na ca lu mel ne ki noonu jàpp na ne daal fi mu nekk nii moom état ba la mu war a def mooy li nga xam ne mooy ay société yoo xam ne ni ci réew mi la ñu ne te juddoo ci réew mi ay doomi réew mi moom leen te état bi am caw yoon dana jàpp ne état ba wala war na ñoom moom Gris Bordeaux ngir société yooyu ñëw dooleel li nga xam ne nii moom moo di lamb Eumeu Sène ba tey wax na jàpp ne li nga xam ne daal moom moo di cent millions ya nga xam ne moom la ñuy dégg ñu leen koy fay jàpp ne ne loolu bay régler seen ay problème Boy Niang ah mbir ya daal loo ci mën a dégg moom maanaam daal ñoom pare nañu ngir fi nga xam ne nii daal moom mooy wàllum frustration moo xam mer lak yu mel ne ki noonu waanaam daal la ñu bëgg daal moom moo di daal ñu fexe fexe fexe ba ñu fexe ñu bëre ndax jàpp nañ ne ñoom képp koo xam ne tey ñëw nga fi nekk njiitum réew wala nga am loo soxla ci réew mi jàpp na ne di nga leen solliciter te boo leen solliciter ñoom itam ay nit lañ yoo xam ne populaire nañu te itam ñëpp dañ leen di bàyyi xel donte nag duñ ko doxe di ko waxe yëglikaay bi ba tey tafaatin mu ngi woon ci jetaay ba moom nag la mu gis daal jàpp na ne moom fu ci mën a dem nit ñi dañ leen a wek kon jàpp na ne kon réew mi ñu dëkk muy Sénégal état na leen gën a jox seen gëdd fexe jàppale leen ba seen làmb ji koo continuer dal di ko bëre loolu mooy la nga xam ne nii daal moom la sunu làmb ñëwal ñu tey mel ni ki nag duñ fa sori ndax li nga xam ne nii wala boog ay combat yoo xam ne taxaw na ay doomi Pikine yoo xam ne daal yëglikaay bi lim na leen tey muy Tyson 2 Valdo Soq Kalmu Ndour ñu ne ñi ñëpp ay espoir lañ xam ne daal ñu nga ca te ku ci nekk daal sumbu ba nga suy mu moom boo bëggee dégg-dëgg rëy na ndax ku ne xam na ne Tyson 2 digganteem ak Franc ku ne xam na ne fi mu nekk nii daal combat taxaw na te waa Vox Arena ñoo ko tëgg muy bés boo xam ne itam bu waa war a bàyyi xel la ak itam kadi Tyson 2 ñu ne déet ne waaye Kalmu Ndour ne ci école de Boy Niang moom tamit ku ne xam na ne digganteem ak Eumeu Sène Junior boo xam ne bu nar a tar lay doon boobay taxaw na soq digganteem ak Gamou Gueye Thiam production fa mel ni ki tamit bés booba bokk na ca ya nga xam ne nii ñu ngi koy xaar mel ni ki daal soo bëggee dégg moom waa Pikine fi mu nekk nii moom seen mbër ya combat ñu ràngoo combat nara méttee méttee métti la ci saison bii nga xam ne moom la ñu dëkkmal ka bëgg lu metti moom ba xëy di ko wax mooy njaay tin rakki tafaatin njaay nag këm xëy di waxal mooy caatu yoof ma ca daal la xëy di waxal ne ko li am solo ba des daal mooy nga ñëw nu bëree tax jàpp na moom njaay tin daal mook caatu yoof ne na maanaam duñu sax benn ne na maa ko dàq bëre te itam nag yemuñu ca maa ko man te bu ñu bëree moom danaa ko wan loo xam ne nii mburu du ko daj ci ab taal loolu mooy waxe ki nga xam ne nii moo di njaay tin rakki ka nga xam ne moom moo di tafaatin keneen koo xam ne ni moom tamit daal yëg likaay bi di sunu làmb xëy ko muy Papa Sow ak 23 victoire ya ne ni na ko yëg likaay nag jàpp na ne fi mu nii day loo ci mën a dégg digganteem ak Siteu moom ndam da ko caa obligé maanaam ndax nag yëg bi ne la ko ca war mooy gagné ngir mën a relancer la nga xam ne moo di carrière ndax sunu làmb moom Ibakan moo nu ko toppal xamal nañu nag la ko waral mooy combat yu mujj yi nga xam ne ñàkk na ko ak année balance yi nga xam ne def na ko ndax digganteem ak Lac de Guiers 2 ku ne xam ne ne Papa Sow dafaa daanu mu ca mu ñëw ci ki nga xam ne moo di Ama Baldé ba tey ñàkk boobu combat moo tax tey Ibakan jàpp ne daal moom Papa moom ndam kese kese mooy li ko jig ci combat ba nga xam ne ni ca la jëm leneen loo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne ni moom ñu ngay xool nañuy def ba seeni mbir mën a dox mooy ña nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ca Fatick ak la ko wër ci wàllum lamb simple ja gaaña daal ñu ngay xëy di waxtaan la ñu fas yéene def nag maanaam daal xool ñu nuy taxawaate ngir nag discipline ba nga xam ne moo di li simple demaat ca place ba nga xam ne ni ca la nekk sunu làmba xëy ñëw dinu ko wax buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record moom aw photo la ñu xëy tey won dinu ne daal ka nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 mu géejawaay ak Aziz Ndiaye ba nga xam ne tamit ci géejawaay la dëkk ñoom ñaar daal ànd nañ dem fa nga xam ne ni moo di ca bayti laayal arab maanaam makkatal mu karama ngir nag la nga xam ne nii moom moo di ab umra yëglikaay baa xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi mel ni ki nag ba tey fa nga xam ne nii daal moom moo di Fatick ak ndangaan la ko wër daal mu mel ni ni ki fi mu nekk nii ca wàllu lamb ca wàllu lambi simple ja daal fi mu nekk nii daal def nañu ka nga xam ne nii moom moo di ab daan dong maanaam daal loola moom la nga mooy li nga xam ne nii daal moom la ñu gis ñoom ñi nga xam ne nii daal ñoom ñoo dëkk foofu nga xam ne nii moom moo di ca Fatick ak Ndangaan ba tey bu ñu continue mu mel ni ki nag fi nga xam ne nii daal dañ fay jël si muy Dakar gi nga xam ne nii fi la ñuy waxee mel ni ki nag Modou Lo coach sam ba nga xam ne nii moo génn àddina mel ni ki nag Ablaye Sarr mooma daal andi nañ ko moo di ci Sénégal ba dénk wala boog ba denc ko jébbal ko boromam ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko te xare ko aljana di ko jaal waa gël tàppe waaye rawatina tamit mu loolu waa désert mi nga xam ne nii moom moo ko daan dalal ci États-Unis daan ko tàggat ci lu jëm ci wàllum box ak yu mel ni ki noona àddinaa ngi noonu hélas demal maa ngi ñëw ña moo tax daal lépp rek di fexe muy rafet day gën a baax mbokk yi maa ngi téléspectateurs yi internautes yi fu ngeen mën a nekk di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen balu àq di leen baal waaw bu den dee balu àq nag dafa fekk na nit kii wax des fois mu wax lu nga xam ne nii ah dana ca blessé nit du ko yëg te yooyu des fois dafay baax ñu leen koy jégalu ci micro yi yaa ngi dégg saa buñ defee wala ñu wax loo xam ne rek blessé na nit ñu ngi jégalu borom mais lépp li ñuy bëgg ci lu ñuy def rek moo di leen indil lu nga xam ne nii lees mën a dégg la luy tax mbir yi di gën a leer ci yéen la parce que tamit loolu mooy li nga xam ne ni moo ñu fi teg te bu dul yéen dara du baax kon yàlla na seen jàmm yàgg yéen ñëpp tey nag ku ne xam na ne ñu ci alterné maanaam lundi 11 janvier 2021 yëglikaay bi di sunu lamb débat bi nga xam ne amoon na fa nga xam ne moo doon ca TFM bëri démb doxoon ci diggante Gris président des lutteurs en activité ak ñamu boot muy Modou roi des arènes Eumeu Sène ancien roi Balla ak Boy Niang ak Tapha ñoom ñëpp ñu nga fa ca jataay ba waaw di suñu mag ñu koy féliciter bu baax a baax parce que tamit wax dëgg yàlla loolu moo lay wan ne nit ki boo nekkee ci benn euh, groupe de presse war nga mën di jéem a yokk sa liggéey di ko gën a yaatal ndax ku ne xam na ne Pape Cheikh wala ci mbalax meeg yooyu mais wax dëgg yàlla def na plateau boo a def leen lu ne ay adversaire lañu ku jégu tar am na ci seen diggante ndax yaakaar naa ne diggante Eumeu Sène ak Gris Bordeaux ñaari combat yi ñu bëree ku ne xam na na mu metteeg na mu tare kii di ba loo diggante mag Gris combat ñu bëree muy ñaar ku ca xam na la ca xew Balla Gaye numéro 2 moom waxaale wuñ ko ndax diggante mag Modou Lo moo xam diggante mag Eumeu Sène ba ci Gris ba ci Tapha ku ci ne defante na ak yow te ku ne xam na ne ba muy defante ak yow lu yomb amu fa woon kon Boy Niang itam ku ne xam na ne ah diggante mag Balla Gaye waxante gu tar am na ci weer yi nu génne ba yàlla def moom mu mujj am Tapha Tine muy adversaire boo xam ne tamit ñoom ñaar kere ñoo bokkoon plateau yooyu loolu moo lay wan ne kon mbëri ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye nag nañu fexe ba adversité bi moom buñ ko yàq maanaam bu a saf la nga xam ne ni moom la ñu bëgg ak nañu jàpp ne état bi na la war a doxale ak làmb defe naa itam bu ñu waxee ñoom dama naan waxal nañ promoteur waxal nañ reporter yi ne ci lamb waxal nañ koy jaay caaf ci lamb ak parce que yaakaar naa cité nañ fa ñëpp presque kon li am solo daal mooy loolu nga xam ne moom la wax yàlla na nekk loo xam ne état dina ci gën a bàyyi xel ba tamit li nga xam ne nii moom moo war a nekk ñu mën ko def pour que lamb ji mën a reprendre maanaam doxaat continuer loolu moom ñu ngi koy ñaan mais vraiment daal jotaay ba mention spéciale et puis li ci gën a neex hélas mbalakante ba ngir di laaj ñi ñooy ñaan loolu la ko Modou Lo ak Eumeu Sène doon balake waaw muy loo xam ne daal vraiment lu naaj sa la waaw di rafetlu lool jataay boobu waaw ba tey bu ñu continuer ah ak sunu làmb defe naa ne ki nga xam ne nii wala boog Pikine xale ya daal daa mel ni espoir ya fa nekk moom jël na ay combat yu moo xam Tyson 2 la moo xam Valdo la moo xam Sokk la moo xam Kalmu Ndour la waaw defe naa ne ku ne xam na ne buñ ne Tyson 2 mook Franc buñ ne Valdo mook Amet Dem Sokk mook Gamou Gueye Kalmu Ndour mook Eumeu Sène Junior waaw defe naa ne kenn ci ñoom amul amuloo adversaire bu yomb moom boo bëggee dégg dëgg rek ñoom ñi ñu lim ñëpp ñu ay xale ne ca Pikine ne ci ginnaaw ñoom Eumeu Sène ñoom Ama ak ah adversaire taay ngeen am de waaye nag ku xam ne lamb moom amul secret wala boo amee secret secret bi moomuy mooy liggéey maanaam respecté la ngay def te itam xam fa ngay aw ak fa ngay teg say tànk defe naa loolu bokk na ci waaye ñuy ñaan rek yàlla journée yooyu ñu yegg ci ak jàmm ngeen bëri ko que le meilleur gagne loolu la ñuy ñaan ba tey keneen koo xam ne nii la ci tafaatin boo ko moom nday ak bàyyi di njaaytin moom euh, caatu yoof la xëy di dëkk daal ne na ko daal ñëw ñu bëri ndax njaay jàpp na ni moo ëpp xam-xam moo daq bëri waaw waaye njaay xam naa daal mën ngaa bëree lool ñeme nga lool mën ngaa xeex lool mbër mu dogu nga waaye njaay ah caatu yoof it naan la de caatu yoof ku mën a bëree la mbëru mbër mu doy waar la ndax ku ne gis na digganteem ak bébé Diouldé waaw yaakaar naa ne jël euh, ba mu ko daan ker ma ko papa Thier di net li ah lu doy a doy waar la waaw loolu mooy waaye nag ah loolu mooy làmb yaakaar naa su ngeen bëree itam dina doon lu neex ndax ku ne xam na Ndiaye Tine ci dogoom ak yooyu record la ñu jëm waaw record moom dafa xëy ñëw tey ci li nga xam ne nii ah moo di Aziz Ndiaye ak Balla Gaye ma nga xam ne daal dem nañu umra ji fa nga xam ne moom mooy ca Makkatal Mukarrama ah muy loo xam ne tamit vraiment am na solo trop ñu leen ciy ñaanal yàlla lépp lu fa ñaan ko yàlla nangu kon loolu mooy la ne rek ah diggante Balla ak Aziz moom fi mu nekk nii soo bëggee dëgg moom liñ naan am soo boo ko jëlee def ci suukar ba pare naan ko lay noppal wala nga tuur ko mais seen diggante fi mu nekk nii noonu la mel ñu leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen ko sàmma parce que tamit yaakaar naa ne lii day lii ànd bu rafet rek moo koy indi ak ku ci nekk itam la sa moo la sa moom ci yow nga jox ko te yàlla tax defe naa mooy lii waaye defe naa tey lii yëpp moo lay wan ne dina am solo daal ba tey bu ñu continuer ci record ndangaan sàmbu wala boo ak Fatick ak la ko wër daal ah ñu nga ca ginnaaw ab dandong de ngir lit simple bi ab dandong waaw moom gars yi daal daa mel ñu ngi koy dolli record a xëy ñëw di wax loolu waaw ba tay bu ñu continuer ah ba tey ci record ki nga xam ne nii moom moo di Ablaye Sarr di coach su Modou Lo boobu nga xam ne daal ah dafa génnoon àddina fële ca Memphis ca États-Unis mel ni nag waaw euh, kooram ñëw na ajuma ji passé defe naa ne euh, ko maanaam jébal ñu gën ca Gueule Tapée waaw ñuy ñaan yàlla yàlla yërëm Ablaye Sarr moomu xare ko aljana ko jaal waa Gueule Tapée yëpp Gueule Tapée nag bu ñu ko waxee suñu xel day dem ci Baba Diaw borom Thiam production ndax ku ne xam ne doomu Gueule Tapée la ak suñu père Kayre ñoom jéen Kayre ñu Medina Rebeuss ba ñaay cokkeer waa plateau yëpp mais di ko jàll tamit le roi des arènes Modou Lo nga xam ne nii wax dëgg yàlla bokkoon na ci ñi ko daan jàppale ci wàllum ay làmbam daan ko tàggat surtout bu demoon États-Unis defe naa kon yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana ah, di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm maman série hélas maa ngi lay nuyu tamit di nuyu bébé bi ah di ko ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm di nuyu suñu soppe yëpp gars fu ci waay a suñu concert ma ja tey day féete anniversaire am ma Dia bu Xaas TV di ko wax happy birthday to you yàlla na yàlla guddal fan yi wéral cër yi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi soo xam ne daal vraiment ku bëgg liggéeyam la ko actif di ko nuyu bu baax waa nuyu ay frère ay frère am rawatina suñu soppe di Amadia ah le nouveau promoteur di ko ñaanal jàmm moom tamit di wax que ni daal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di balu ñëpp ak waaye tamit di wax euh, merci Papa Gaston Mbengue ci démb daal bi mu ñu dalal këram di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu képp kuy promoteur ñoom ñëpp maa leen di nuyu waaye Amdi Moustapha tamit di ko ñaanal yàlla ceetam seetam boobu ak ngeen dem loolu yàlla na si yàlla def rek barke waa Amdi waa maa ngi lay bëggee bu baax a baax yow vraiment di nuyu waa ëxlu làmb yëpp nag ña fa teewoon ñëpp xam nga waa xew-xewu làmb waa ëttu làmb ji ñoom ñëpp waa groupe baax jeune amateur boo xoolee kër ñëpp teew nañ fa loolu moo lay war ne lu baax rek moo am solo am di nekk jeune boo xam ne bu dynamique la bu taxaw daal taxawaayu xale boo xam ne mënees na am ci moom yaakaar ëllëg kon yàlla na ko yàlla defal fan wu gudd ak wér gi yaram bàyyi koog soxnaam ak njabootam hélas yàlla na am jàmm waaye hélas tey xam nga ku ma solal OM bi wulli <laughs> wulli daal moom ma jox OM bii tey wulli maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax waa di ko ziar moom it borom waaju baax la waaye tamit beneen anniversaire bu ko kenn fàtte muy la 14. janvier liiru jaan moom mooy anniversaire waaw loolu dañ ci bàyyi xel di bëggee ñëpp El Hadj di la ñaanal jàmm